asalaamaaleykum mbokki yi déglu dal leen jàmm juróomi weer ginnaaw ba fi mbas bi di covid a duggee fii ci biir réew mi am na ci lu weesu fukki junni nit yoo xam ne nag am nañu feebar bi tey jii colikaay bi di Sud Quotidien daal di def ab taxaw seetlu ci nag ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite nañuy doxalee jëmale ko ci wàllu mbas boobu ndax dina tax nag ba feebar bi dellu ginnaaw wala boobu ñu daal di koy faagaagal ba faw en tout cas ñi nga xam ne nag seen xam-xam dafa màcc ci wàllu wér gi yaram ñoom de ànduñu ak tëralin yi nga xam ne moom la fi nguur gi daal di tekk suñu naataango yi daal daal di waxtaan ak professeur Cheikh Mbacke moom jàngalekat la fa li nga xam ne moom mooy ci université Cheikh Anta Diop de Dakar mu daal xamle ne mbas bi di Covid 19 ab problème bu mag la ngandi maamu problème la boo xam ne nag faw ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ak tamit askan wi daal di ci bàyyi xel gouvernement bi nay faf nag di wéyal lu ñuy tuddee sensibilisation maanaam daal di ñaax ñii nga xam ne nag ñoom ñooy ndaw yi ngir ñu war kaa mën a wasaare fépp ñëpp tamit daal di ci mën a jot rax ci dolli tey jii bu ñu demee nag ba gis ne léegi askanu réewum Sénégal faaleetuñu nag li ñuy tuddee ay gestes barrières kon gouvernement bi war na soppi doxalin fexe nag ba léegi askan wi di gëm dëggantaan lépp lu ñu leen di wax jëmale ko ci wàllu mbas moomu ci biir jolikaay bi di laas ñu naataango yi du ñu xamal ne sa njëlbeen ñëpp ragaloon nag feebar bii di coronavirus wante léegi dafa mel ni dañ koo ñeme ba sax dañu ko ñàkkal fayda loolu la koy firndeel moom mooy la ñuy tuddee geste barrière maanaam daal na ñuy moytandikoo feebar bi dafa mel ni nit ñu bëri léegi dafatuñu ko xalif général des Tidiane di Serigne Babacar moom de yàgg naa wax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite nañu wax dëgg bi askanu réewum Sénégal autolikaay bii di réew mi quotidien du ñu xamal ne kàddu yi ni mel démb xalif général de des Tidiane daal na koy fësalaat ca levée du corps bu Mansour Kama fa li nga xam ne moom mooy ci hôpital principal moom moomu sax di xalif général des Tidiane ba mu yegsee dañu ko téye ca bunt ba te xàmmewuñu ko woon ndax masque ga mu soloon autolikaay bii di waa grand place ay kàddu xalif général des Tidiane fësal ci bu njëkk maanaam daal nañu wax askanu réewum Sénégal dëgg bi am nag ci mbas bi di Covid 19 nañu leen wax ne feebar boobu amul lu koy faj te li ñu war a def moom mooy moytu ko moom xalif général des Tidiane gis ne loolu nag di wax dëgg bi askanu réewum Sénégal moo gën nag saa su ne ñuy wax ñaata nit ñoo am feebar bi di coronavirus autolikaay bi di la témoin ñoom it la ñu gis moom mooy ne gouvernement bi dafa mel ni ne am na la muy làq jëmale ko nag ci wàllu feebar bi di coronavirus ndaxte fu mu nekk nii moom ñii nga xam ne ñoom ñooy ñàkk seen bakkan bés bu yàlla sàkk ci feebar bi bëri bëri nañu te it dafa mel ni ni duñu joxe nag lu leer jëmale ko ci wàll gi ni mel feebar bi di coronavirus dafa mel ni nag ne moom moo indi ay yàqu-yàqute yoo xam ne ne meeku nañu ko euh, ci ëttub tasub xibaar bii di les échos utulikaay bii di critique du ñu xamal ne démb ay samba booy ñoom ñoo dugg nag euh, te nga xam ne fa waa utulikaay bii di les échos daal di nekk dal di koy caxat caxatee ginnaaw ab xibaar boo xam ne dañu koo fësal jëmale ko ci wàllu mbas boobu mu mbas boobu nga xam ne dafa dal benn kilifa diine bu mag forum civil di ko naqarlu ñi nga xam ne ñoom ñooy éditeur de presse yi di xamle ne faw ñu topp mbir yi nag yóbbu ko ba ci kanamu yoon njiitu réewum Sénégal di Macky Sall dina dem samedi bi ñu dëgmal fa li nga xam ne moom mooy ca Medina Baye ngir daal di jébbal njaalam xalif général bu yees bu ñaseen di Cheikh Mahi Niass tey jii sax autolikaay bi di lii quotidien di ñu xamale ak moom di xamal ne kii di Cheikh Mouhamadou Mahi Niass mi nekk xalif général bu yees bu ñaseen yi nit ku yaatu la nit ku baax la tamit ñu wax ak autolikaay bi di Dakar Times ci mbirum Abdou Karim Fofana ndaxte suñu naataango yi ñoom la gis moom mooy ne Macky war naa kontaan daal di félicité ki nga xam ne de moom mooy Abdou Karim Fofana ndaxte moom daal di nay réussir fa nga xam ne nag foofu la kii di Mamadou Diop Pape Diop Khalifa Sall ñoom ñi nekkoon maire de Dakar ñoom ñëpp nag daal di lajj la ko waral moom mooy ne moom moomu nga xam ne moom mooy Abdou Karim Fofana waxtaan gi mu waxtaan ak ñi nga xam ne de ñoom ñooy commerçant ya nekk ci Sandaga ak tamit tey gi mu ci moom moo tax nag ba tey ji ñu daaneel bâtiment boobu war kaa mën a tabaxaat aujourd'hui bii di Dakar Times ne la Abdou Abdou Karim Fofana doxalee loolu nag di firndeel ne njiitu réew mi war naa mën a sukkandiku ci jeune génération bi ngir mën a doxal réew mi jeexalee ko nag ak sàcc gu métti gii nga xam ne moom moo amoon ca ADIE di agence de l' informatique de l' état autolikaay bi di libération mi ngi ñuy xamal ne foofu moom weesu na ñaar téeméeri ordinateur portable ya ñu fa sàcc ak fukk ak benn ordinateur fixe yoo xam ne it daal dinañu ko fay jëlee te nag ka def li ni mel du keneen ku dul gendarme ga fa tegoon ngir mu daal di euh, saytu euh, kaaraange bi gendarme boobu nag di Moussa Faye sa njël benn yéenekaay bi di eh, libération mi ngi ñuy xamal ne dafa weddi tuuma yi ñu tegoon ci ndoddam sa mujjantal ga mu daal di koy nangu nettali nag mbir ya na mu demee ak tamit ñan la lëkkaloo woon eh, ba muy def ñaawteefam googu doyen de juges daal di nay fësal nag fukki inculpation teg ko ci ndodd ñi nga xam ne daal ñoom ñoo def li ni mel lii moo nekkoon botulikat yi li gën a fës ci biir ëtulikaay yi ñu leen di ñaanal njeextalu bés ak jàmm mesdames et messieurs nouveau coronavirus. La situation s'aggrave, une situation plus que préoccupante, mais les populations défient les mesures restrictives édictées pour endiguer la propagation de la maladie. Et par rapport à la riposte contre la covid beaucoup de spécialistes désavouent la politique de l'État. Et aujourd'hui, dans ce quotidien, nos confrères sont entretenus avec l'enseignant-chercheur de l'université Cheikh Anta de Dakar, le professeur Cheikh Mbacké qui trouve cette maladie contagieuse progresse, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas l'adhésion de la population. Et selon le professeur Lowe, pour corriger cette philosophie de banalisation de la maladie par les populations, il faut intensifier la sensibilisation à l'adresse des jeunes gens en priorité. Pour le professeur Cheikh Mbacké Lo, nous allons vers des lendemains incertains. Cependant, le directeur de la prévention, porte-parole du ministère de la Santé, le docteur El Hadj a réfuté cette thèse articulée de conscience populaire par le ministre Diouf Sarr en optant euh, pour le durcissement des mesures contraignantes pour le respect des gestes barrières édictés par le ministère de la Santé. Nos confrères du quotidien LAS, eux aussi, notent que la covid est apparemment devenue un mythe pour certains Sénégalais qui, depuis la levée de l'état d'urgence le 29 juin dernier, toisent le virus en faisant fi des règles de distanciation sociale et des mesures barrières. La stupeur cède ainsi la immunisation collective. Et il faut aussi signaler avec nos confrères de Réumi Quotidien que le Khalif général des Tidjane, Serigne Babacar Sy Mansour, n'est pas du tout satisfait de la communication actuelle euh, sur le coronavirus et il ne rate jamais une seule occasion euh, de le dire. Pas plus tard qu'hier, lors de la levée du corps de Mansour Kama, le patron de la CNES, il l'a redit et répété. Et selon nos confrères de Réumi Quotidien, le discours du Khalif général des Tidjane sénégalais. Les propos du Khalif général des Tidjanes Serigne Babacar Sy Mansour également à la une du journal Wa Grand Place. Dites la vérité sur le coronavirus, affirme-t-il, car selon lui, ceux qui représentent l'État doivent parler à la population en lui disant la vérité, car cette calamité venant de Dieu et qu'on appelle maladie n'en est pas une en réalité et il faut dire à la population qu'il n'existe aucun moyen pour lutter contre. Donc il demande à focaliser sur les bilans. Dans le quotidien Le Témoin, nos confrères eux aussi aimeraient bien que le gouvernement avoue ce qu'il en est réellement concernant cette pandémie, car face à l'avalanche de décès intervenus ces derniers jours, les statistiques gouvernementales apparaissent bien ridicules. À l'évidence, le gouvernement ne dit pas la vérité aux Sénégalais à propos du coronavirus, écrivent nos confrères du quotidien Le Témoin. Le virus ressuscite le monstre, vandalisme dans les locaux du journal Les Échos. Nos confrères du journal Les Échos nous dit critiques ont reçu euh, la visite de gros bras et casseurs qui n'ont rien à envier au virus tellement ils ont ravagé tout sur leur passage. Le Forum civil condamne sans réserve. Les éditeurs de presse se braquent et demandent justice. Le chef de l'État Macky va présenter ses condoléances à Medina suite au rappel à du ralif général des Niassènes. Selon nos confrères Guédiawaye samedi prochain. Et après l'hommage rendu avant-hier au défunt bâtisseur chez Ahmed Tidiane Niasse, le président de la République a eu hier soir un long et émouvant entretien avec son successeur cher Mahi Niasse. Et aujourd'hui, nos confrères de Li Quotidien nous présentent le nouveau khalife général des Niassènes, cher Mouhamadou Mahi Niasse, un homme ouvert et généreux. Dans le journal Dakar nos confrères nous indiquent que le chef de l'État Macky a Diop, Pape Diop, Khalifa Sall, tous d'anciens maires de Dakar et Alioune Ndoye, actuel maire de Plateau, ont échoué. Nos confrères nous parlent évidemment de la démolition des cantines sur la voie publique et la reconstruction du marché Sandaga. Et il a fallu l'arrivée de ce jeune Macky Boys, Abdou Karim Fofana, pour voir aboutir ce projet cher au chef de l'État Macky et en ayant réussi à convaincre les commerçants de quitter les lieux sans échauffourée avec un Sall peut bel et bien faire confiance à la jeune génération. Terminons par le journal Libération qui nous font des révélations aujourd'hui concernant euh, le euh, vol à l'agence de l'informatique de l'État. Le gendarme Moussa Faye ainsi que plusieurs de ses complices ont été placés sous mandat de dépôt jeudi dernier pour association de malfaiteurs, soustraction de deniers publics, vol en réunion dans un édifice de l'État avec usage d'un moyen de transport, recel et de capitaux. Et grâce à un système police ont vidé les entrepôts de l'agence de l'informatique de l'État. Au début, nous disent nos confrères de Libération, Moussa Faye jure dans un premier temps euh, qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça avant de passer aux aveux. Et il déclare qu'un de ses acolytes lui a promis une forte somme euh, d'argent et un séjour à l'étranger en échange de sa complicité. Au total, cette mafia aura volé 212 ordinateurs portables et 11 ordinateurs fixes dans les entrepôts de l'ADIE. Le inculpation. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.